asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki euh, jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara fu ngeen mën di nekk ci euh, biir réew mi ak ci bitim réew di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér mbokk yi ñu ngi tey jii ci bisu xasida bi nga xam ne sëriñ bi moom moo ko santaane ñu koy amal di ko dundal euh, ci dëkk bi nga xam ne moom moo di waaye di ko dundal fi nga xam ne moom moo di ci réew mi waaye nag ci bisu xasida bi euh, dafa am euh, jotaay bu am solo boo xamante ni amal nañ ko fi ni ñu leen ko leeralee ni ki démb ci wàccaay wi muy mbooloo mi nga xam ne moo nekk suñu ginnaaw ñu féetewoo li nga xam ne moo di mbindum xasida yi mu nekk lu am solo loo xamante ni bëriwul luñ koy gis ci loolu nag dañoo ñëw fi nga xamante ni moom moo di ci barab bi ñu fekk fii kenn ci jëwriñ yi muy euh, sëñ Ibrahima Lo ñu fekk fii ki nga xam ne moom moo di sëriñ Ibrahima loo sëriñ Ibrahima Lo fas yéene leeral li nga xam ne moom moo di mbind mi ni nga xam ne noonu lañ ko organisé ak lépp loo xam ne moom moo ci aajow sëñ Ibrahima ñu ngi lay nuyu di baax a baax a baax mu mel ni yéen a ngi fii ci résidence Khadimou ñu faral leen ci salle bi ngeen fayeteewoo li nga xam ne moo di mbindum xasida naka ngeen ko organisé. waaw kay bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa ñi ngi nuyu mbooleem ñi seetaan ak a teewlu di ñaanal Cheikh mun Muntaxa suñu boroom yàggal ko fi lool te wér te li mu naan liggéey sëriñ bi lépp mu yeggale ko te nu ànd koog moom barki Xaadimul Mustafa waaw noonu li nga wax rek maam tey jii ci bisub àllarba bi nga xam ne mooy ñaareelu fan ci weeru Muharram ndigal li nga xam ne moom la Cheikh Mahamadul Muntaxa Mbàkke joxe woon ngir wax ne képp koo xam ne xasida yi doon na yitteem mu di ko jàng wala mu di ko durus sàkk woon bis bi mu ñëw teew fii ci Touba ci jumaa ji ak li ko war ngir dundal bis bi ñaan ci liñ ci war a ñaan sëriñ bi ginnaaw ba mu ci fasee lam ci fas moom seex moom Cheikh Mamadul Muntaxa liggéey boobu yi nag nga xam ne mooy liggéey liggéeyu xasida di liggéey bo xam ne tey jii bu ñu demee ba jamono jii ginnaaw xasida yoo xam ne ba ko sëriñ bi taalifee ba tey mat na téeméeri at bu demee ba tey jii ñu mën koo jariñoo kenn ku nekk man ko am ba mën koo jàng day mel ne kon loola am mbind a tax mu mën a sax ba ta te waykat ba dafa dafa waxoon ne alxattu yabqa zamanan baada kaatibihi wa saahibul xatti taxta ardi madfuunu wax ne bind moom gannaaw bi ñu ko bindee mën naa saxaat ay jamono yu baree bare bari ci kaw suuf fekk na ka bindoon mbind ma sax moom faatu na ban denc ko ci biir suuf liggéeyub sëriñ bi nag dara da cee gën a kawe xasida yi ndax moom xasida yi la jàppe muy ab liggéeyam ndax mooy tool bi nga xam ne ci la doon liggéeyal yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ba am ngërëmam ci tagg ko ak ci julli ci moom alayhi salaatu wasalaam liggéey boobu nag ba mu ci noppee dafa waxoon ne bu ma ci noppee ñi seeni loxo rafet nañ ci jaar bu ca ñooñu noppee ñi seeni baat neex doog caa jaar kon day mel ne ñi nga xam ne ñoom la cërale liggéey boobu am nañ wàccuwaay bu rëy rëy ci yoon yi waaye am nañ waay bu rëy rey ci ci sëriñ bi moo tax nag ba ndigal la joxe ba li jógee nag ñun ñi nga xam ne ñun la suñu borom tawféexee loolu ñu jàpp ne kon sëriñ bi dañu ciy liggéeyloo tax nu xam ne waruñoo jiital ci liggéey bi dara am mbind tax nag ñu nos ko nosin woo xam ne am nañ pas-pasub bind ab lim bu takkoo takkoo takko ci xaside yi ci loo xam ne mbindum loxo lay doon ngir mën koo jox Cheikh Mahamadul Muntaxa ngir sant ko ko ci ndigal li nga xam ne moom la jox taalibe yëpp te nu xam ne it am ca pas-pasu bit ñu xamee ca ne lu jamono yàgg-yàgg bis bii bis bu ñu fàttaliku la kenn dootu ko fàtte ci àddina waaye nag lu jamono yàgg-yàgg nu mën a am loo xam ne daanu ko mën a téye ngir mën a wax ngir mën a wax ne lii kat ña bis bis ba nga xam ne Cheikh Mahamadul Muntaxa woote woon na ko liggéey bi ca lañ ko liggéeyoon nga xam ne lu jamono yàgg-yàgg liggéey boobu mën na fee doon liggéey bu fi des boo xam ne dañ koy fàttalikoo bis bii waaye nag lépp rek ñu am pas-pasu li nga xamee ne loolu la ci Seex Mamadul Muntaxa fas nu ñaan suñu borom defal nu ko ci te xam na lépp moo tax sëriñ bi tànn ko tey jiital ko ci bis bi ngir nu defe ndigal yi nii ma ko waxee ñi bind moom Tuubaa rek lañ bàyyi ko wala ci gox yi fasanti ko ah kay ñi bu fe bu dee mbooloo mii fi nekk di bind am na ci ñoo xam ne ci dëkk bi lañ nekk waaye am na ci ñoo xam ne it dëkkuñ ci biir dëkk bi ñu jógee Ndakaaroo ngi ci ñu jógee Kawlax ngi ci ñu jógee Ndar ñu jógee luga ñu jóge jurbeel ñu jógee faneen ak faneen ak faneen ci ci biti ci biti dëkk bi waaye bari na ci it ñoo xam ne moom ci biir dëkk bi lañ bàyyi ko mhm. mën nañ xam tamit xasida yi nga xam ne moom la ñuy bind wala moom lañuy tàmm pour bind waaw bu dee xasida yi moom dañoo tàmbali ab liggéey boo xam ne bi sëriñ bi joxee ndigal li rek dañoo daal di nosu daal di tàmbali liggéey bi fas yéene bala ñu àgg ca bis ba ñu wut ab lim bu takkoo takku ci ay xasida dañ na nag mbooleem xasida yëpp ni ko sëriñ bi diglee ci njàng mi wax ne daa bëgg xasida guñ jàng sax ñu bañ koo jàngaat waaye loolu lépp li ma wane rek mooy doole mbindum sëriñ bi ak ak yaatuwaayu mbindum sëriñ bi ndax day mel ne tey jii boo gisee li fi war a teew ci ay jàngkat ci ñuy rajas ak ñuy kuréel te kenn ku nekk ta xasida guñ xas a jàng duñ ko jàngat day mel ne loolu rek maam day day wane yaatuwaayu mbindum sëriñ bi day mel ne mbind mi nuy bind itam loolu rek lay wane ba xasida yépp lañ ci bind ca bañ ko yaatalee waaye bisub tey bii nag dañ cee nos ay xasida yoo xam ne yooyee lañ ko jagleel ngir bind ci xasida yi ci bis bi xasida gu nekk ñu mën ci am ab lim euh, ah kay mbind moom dañ koo fas yéene wéyal ba tàkkusaan ba sëriñ bi yeewee rek gannaaw ni ko sëriñ bi santaane woon wax ne juróom-ñaari waxtu suba nanu xëy ñëw daje ci barab bi ba juróomi waxtu ci ngoon day mel ne kon liggéey bi noonu rek lañ ko fas yéene noonu rek lañ ko fas yéene doxale hmm. baax na jërëjëf euh, sëriñ Ibrahima Lo ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati nga ko mu jëm ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moom ngeen di def mu nekk loo xam ne comme ni ko leeralee rek luy des lay doon ndax am mbind day des ndax euh, ni nga ko euh, leeralee ci sa njëlbéen wax tey bu ñu demee bay jariñu ci mbindum euh, Cheikhul Khadim dañ ko bindoon moom tax ñu mën na dem bay ñuy génnewaat ne mbind mi kat ñu ngi ko bindee bi nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir moom la woote woon mu nekk bésu xasida nekk lu baax a baax di leen gërëm xam naa rek ñu bàyyi la nga àgg ci delluwaat ci liggéey bi mel ni yow it yaa ngi ci yaa ngi ci mbind mi alhamdulilah waaw kay noonu itam leen sant bu baax di leen gërëm nga xam ne yéen a ngi koy tasaare liggéeyu sëriñ bi ndax ku seen télé yi ak ak yeneen yu ni mel seen yitte jëpp mooy tasaare liggéeyub sëriñ bi kon nag day mel ne pas-pas boobu day mel ne day nuroog suñu pas-pas bi day nuroog pas-pas bi nga xam ne moo tax sëriñ bi woote bis bi ndax day mel ne kon moo tax ba fépp foo xam ne ab taaliba nekk na fa wala fépp foo xam ne ab jullit nekk na fa te liggéey bi ñor ko day mel ne lii mooy jotalikaay yi nga xam ne ci lay mën a jaar ba àgg ci ñoom kon yéen itam noo ngi leen ñaanal seen liggéey yi suñu borom barkeel ko ba li ngeen ci yéenee liggéeyal sëriñ bi yéen ko cee ba ngeen man ko ni ngeen ko bëggee barke Seexul Xadim wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf Serigne Ibrahima Lo kon mbokki téléspectateurs yi lii mooy li nga xam ne moom lañ leen jëlee fii nga xam ne fi la ñuy amalee mbindum xasida gi lépp la jëm ci bés bi nga xam ne moom Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir di xalif général des Mourides moom la woote ci Touba Mbacké kon mbokki ñu ànd ak yéen ci yeneen reportage yoo xam ne daañu ko amal fii ci dëkk bi wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatuhu